ayca ma nga noonu yaakaar naa ne sénégalais yi depuis boobu ba léegi ñu ngi leen di bégal euh, ñi fi génnee léegi kenn dootu leen présenté ndax dañoo doon ay ndaanaan yoo xamante ni si c'est de jeunes talents mën la ñuy def waaye yaakaar naa ne sénégalais yi yéen a ngi bég du fàtte di ko wax tey dafa tombeeg fête de la musique bu ñu nee fête de la musique nag yaakaar naa ni door nañu ko depuis mille neuf cent quatre-vingt-deux waaye Sénégal réactivé nañ ko dinaa ñëw ci kanam tuuti ci deuxième heure bi kan moo ko réactivé ban artiste moo njëkk a def fête de la musique waaye yaa gis benn mbir yaada ba lu guddi gi di gën a dem may gën a gis ay ndaanaan Télé Musique Sénégal ndekete mooy télé ndaanaan yi dama dama damay seetaan benn jour Télé Musique jekk ba si yàgg gis ñu teg benn xale bu góor mu ànd ak sëram di way yàgg naa koo gis yàgg naa koo topp ci ay milliers ak pulaar su wayee sa xel dem ci Baaba Maal su wayee sa xel dem ci Abu Jubaade waaye moom muy ndax naan namp ay way ay way nekk ci moom ma bëgg tey sénégalais yi découvrir ko yàlla ba kooku kan la kooku mooy kan nga ni dem ba gisee dem ba gisee mooy dem ba gisee mais dem ba gisee nuyu naa la mais ma ba ñëwoon nii dem ba sénégalais yi ñëwoon nii ñëwoon nii ah, sénégalais ba gis nga man dañ mais mbaalu corona bi dan la sonn noonu corona la corona moom dañ koy dóor mu daanu quoi pour la première fois way kat ñëw na corona dañ koy dóor mu daan dem nuyoo la non dañ koy dóor salaamaaleykum Sénégal maa leen di nuyu di len kontaane di rafetlu vraiment émission tey bi ah. wax ni nak tay télé musique mo xewlé tay c'est la première fois vraiment mo am Sénégal ñun dañ ko doon gis si yeneen i réew vraiment ñu indi ñu ko fii donc sant yàlla ah. kon sant yàlla tey nag Sénégal yi bëgg ko aussi. Uh-huh. xam naa ci dara. Uh-huh. donc tey bu dee def euh, fête de la musique tey. Uh-huh. loolu suñu fête la. loolu seen fête la waaw gis nga dem ba gis télé musique juddu na xale yi tuddee ko télé musique Sénégal euh, le directeur général ne télé bi dama koy jël jagleel ko képp kuy musicien dama koy jël jagleel ko képp koo xamante ni si waykat nga naka nga ko dundee yow bi nga yëgee loolu. waa xam nga dafa am solo mooy li ma léegi ne xam nga mm, euh, télé yi bari nañu. Mm. Euh, mais bu ci nek ak lan moy fi lan la gëna focaliser wu. donc waxna ko sank c'est la première fois tay ñu am télé musique fi ci Sénégal. Mhm. télé yi fi nek yeb bu ci nek ñu def yenen ak yenen yenen c'est bien. Mhm. waye bi dafa ñëw rek. tënku si ñi nga xamante ni moom moo def musique li nga xamante lépp lu lu baax lu lépp lu culture di def rek. Mhm. mu nekk ci donc loolu su lu ñu rafet lu la ah. man mhm. kontaan naa ci lool donc télé daal ci kaw ci kanam. télé daal ca kaw ca kanam. Ah, yaada ba lan ngay laaj li nga xamante ni si mooy ah, Demba Guissé di waykat bu mag lan nga koy laaj. Demba Guissé li ma lay laaj mooy. Mhm. Euh, télé Sénégal tey. fait de la musique dans la fekk nga ne di concert wala di tëgg def lu la neex tey loolu yep amul ndax corona bi tey ñu andi la fi nga xamante si mooy télé de la musique nan nga gisee télé de télé télé musique Sénégal fii nii. waaw bon xam nga comme ni ñu koy waxee rek nit moom bu nekkee ci liggéeyam tey ñëw ba télé ubbi ñëw fekk ci ko ci liggéeyam. télé boo xamante ne ñun suñu liggéey moo ko tax a jóg donc tey dañ koy rafetlu surtout nag bu ñëwee tey ba bis bi nga xamante ni moom lañ jagleel musique tey mun naa ni tey su ma su ma neexoon sax ma ne tey euh, télé musique moo waroon def euh, euh, fête de la musique ah. Mm-hmm. Ah, parce que moo ko moom vraiment mm-hmm. mais quand même rafetlu ko trop ah parce que aussi xaar nañ ko mm-hmm. bu njëkkoon dañ ko doon def dëgg fi ay concert ak yooyu ren nag yombal nañ ñu ko donc boo ko xoolee ñu bëri sax dañoo amoon ay rendez-vous di def ay

Sénégal yëpp delluwaat ci seen ay activité waykat yi mën a wayaat dem ba diggante trois mois yi nga xamante ni si couvre-feu am na confinement am na lan la la fekkoon ngay def yow en tant que waykat bon man euh, ah bon euh, juste boo amee remarque tuuti euh, euh, que ni avant programme bi avant euh, kii bi ñëw amoon na programme yu bari yu gars yi jàppoon ay date parce que man damaa jeexal sama anniversaire Sorano février je pense que mars la la la la corona ñëw mm. te avril. Mm. Euh, avril non mai à juin je ngi fait entre Mantes la à Paris Lyon Bruxelles à Suède mm-hmm. ma am ay dates yu ma confirmé ba pare. boole koog euh, festival euh, mm, Zénith Baaba Maal bi. donc même ba corona bi ñu koy dégg ay euh, mm, nañ tudd Italie. ak bu mu jógee Chine dem Italie. boobu ñun ñu ngi amoon maa ngi amoon date yoo xam ne confirmé naa ko ba pare. am na sax beneen boo xam te ni laajaañ mu ngi may seetaan xam naa ni bu fi nekkoon dina ko seede. donc pour wax la ne que yàq na programme yu bare bare bare bare ci côté culture quoi xam nga. waaye nag sant yàlla ah. man dama naan li mu gën a yàq ci ci mu ci mu naqari ma mhm. du sax fecc bi wala woy bi mhm. dëkk bi ak yooyu non non non du du programme yi entre entre jullit gi ñu nekk mhm. donc saafonte gi ñu waroon saafonte euh, jàkk ji ñu waroon dem julli ji donc euh, euh, dox mbokk gi ñu waroon def mu tere ñu ko lépp donc tey xëy na ak ak nu ñu sunu sunu sunu diine sunu aada mayee tey ñu war a mën a jëflanteeg suñuy mbokk dugalante jaxasoo ak ñoom loolu mu tereñu ko loolu moo ci gën a rëy ci lu mu def xam nga ak jàkk yi ñu tëj jumaa tëj ak màkk gi nga xamante ni gars yi léegi mënuñ suñ dem sax dem aji moment boobu donc yooyu moo ci gën a rëy ci yu ma mën a naqarlu yaa ngi dégg bi lii ñëwee nag si kon suñu côté liggéey nag vraiment day nekkaat encore boo xam ne dafa dollee ko encore quoi parce que tey man waxuma sax man man Sénégal parce que li ma tëgg soirée fii Sénégal tax ko bari trop trop quoi oh, peut être chaque mois ben quoi mm. mais lima yakal ci man ci samay programme en Europe mo mm. gëna bari amoon festival bu ñu euh, bu mo waroon def di biir Italie euh, euh, Espagne ah, Las Palmas ah. soir festival extraordinaire bo xam ay blanc kese ñoko waron def ah. dégg affaire avancé won et tout ça waye li alhamdoulillah léegi nag nak dem ba faaw sénégalais yi xam nak ban rendez-vous ngay joxe fi nga xamanteni si ci Sénégal ñu fassiyene li la fa ko week-end bu nek nga fay jouer nak dem nak say fan si ñu ngi koy wax wa bon Sénégal mom bon xam nga Euh, euh, boîte yu bari bari bari. Ah. fi ñu toll nii dafa kii avant sax ñun euh, confinement bi di ñëw. Mm. xaw na ay boîte yi léegi bareetul woon trop quoi. Mm. xam nga donc mais quand même dañu bàyyi affaire yi jàll rek avant mm. rendez-vous d'abord. ñu wax gars yi rek nekk que au lieu de joxe rendez-vous pour dem tëggi soirée yi. damay def ay duo yoo xamante ne mu ngi maa ngi def def benn duo bu mag man ak Pendo encore. dafa beneen dio man ak Jaamaan. am beneen def nag bu war a gën tabaski man ak Pape Diouf la. donc def ay duo comme niko ko américain gi ngeen defee quoi. Mm-hmm. pour na gëna doxal affaire aussi na gaay defante ni xam nga di dem lenté mm-hmm. ndax artiste légui ya ya, ma gëna xam. Mm-hmm. du ma woyandoo ki dew ma ki kii xew kii fay amul chance. lolu nak dina am émission mo xam te faaw ñu tok waxtane lolu yëpp <laughs> ma yow ñu li am solo moy donc ñoo bokku lu ñuy def. pap juuf sama grand la. man non la amé ay rak donc kuma ci wama ma diog yow waaye man dama soxla pap woko ko mu ñëw ñu song ko daan ko dëgg neexul. waaw waaw ah. non lay demee <laughs> yaakaar naa ne nag moom mooy Demba gisé mbokk mbokkum ndeyum Pendo Pendo mi nga xamante ni si moom suma jigéen la waaye ñoom it am na rakk joo xamante ni si moom mooy suma moom xam na ma xam yaakaar naa ni c'est la famille Adja Yada Ba yaakaar naa ni dem ba gisee laataa moo tàggoo yow it faa ñëw ci deuxième partie bi. ndax sénégalais yi wax nga leen que dafa am émission booy def bu tudd tey mu leer te war ngaa dégager carrément li nga war a leeral sénégalais yi xam ko mm-hmm. waaye laataa loolu dama lay bàyyi ci première partie bi mm-hmm. nga tàggoo soo tàggoo dem ba tàggoo mm-hmm. su ko defé ñen and so len àndee nga gungé ko après nga wajjal deuxième partie bi ñu ñëw waxtaanee bëree la jëm 5h du matin ya dama wa lool lay def damay daal di dem daagu ndànk ndax tey ñoo xewle dañuy sàjj di sumeeku di fëlaale di def luñu sax sax boogaam dañuy nan sàjj di fëlaale di sànneeku ko la make up mama man mooma make up farama ci ndér wa mu ngi non noonu mooma make up tey mo mooma make up kon yow ba ci kanam. ba ci kanam maay gunge ki nga xamante ne si mooy Demba Guissé. mooy Demba Demba lan ngay tàggoog Sénégalais yi. mais ma leen di ñaanal yàlla def jàmm rek te xam télé bi na affaire yi ah. soxla nañ ko te solo lol. te Sénégalais bëgg nañ ko waaw. <laughs> moom dafa ñàkk ñaam soxla woon nañu ko te it solo lol. te Sénégalais bëgg nañ ko yàlla ba dama lay bàyyi nga yóbbul ma Demba su ko defee Demba moom ñu ngi waaj yëf yu bees takk ak moom mm. incha allah Sénégalais yi dootuñu umpe fépp foo xamante ni la Demba ni joué foofu foo xamante ni si foofu la Demba di wootee waaye nag ndéem plateau bi maay borom damay défilé tey damay défilé tey damay jaayu tey damay wane sama bopp ndax tey fa amoon ni sénégalais que bis bi euh, spécial Tumba la ak Rumba man maa ko moom ba tax na fu ma neex laay jàll ah tey nu ma neex lay def tey damay dosé tey damay damay damay damay damay damay filaale damay def lu ma neex euh, euh, léegi nag régie damaa bëgg nag ñu daal di wéyal su ko defee ah, ah, ah, ah sama gan yi nga xamante ni si ñoo ngi ci biti ñoo it ñu indil ma keneen rek geneen gan goo xamante ni si man ma xam gan yi ndax tey spécial waykat yi ñoo ko moom